ci ndigalu suñu kilifa muy monsieur le ministre Abdou Karim Sall ministre de l' environnement et pour ànd ceeg waa Sococim yi nga xam ni duñu tay ci di leen gërëm pour lakk mbuus yi nga xam ni jàpp nañ ko ci marché bi ndax comme ni ngeen ko xamee bés ni tey mu am at bi Sénégal voté promulgué benn loi boo xam ni day tere yenn xeetu mbuus yi ak yenn xeetu plastique yi ñu koy jëfandikoo fii ci réew mi muy mbuus wala plastique yoo xam ni dañ koy jëfandikoo benn yoon rek sànni ko am na at ci tey waaye bu ñu xaymaa ci at boobu liñ ci def mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari opération def nañ ko fii ci Dakar ak yeneen treize régions yi nekk Sénégal yëpp sorte yooyu ñu def ànd ceeg waa gendarmerie ànd ceeg waa polis ànd ceeg waa douane ànd ceeg waa service d'hygiène ànd ceeg waa service du commerce ci gunge bi nga xam ne autorité administrative yi muy préfet yi gouverneur yi sous-préfet yi jàppale nañ ñu ci lu plus de soixante-dix tonnes de sachet jàpp nañ ko fii ci Dakar nag lu mu bon bon plus de trente-cinq tonnes jàpp nañ ko fi loolu bu amee day doon loo xam ne du liggéey ministère de l'environnement rek waaye biñ ko jàppee dañ ci am ñaari option benn bi dañ ne woon dañ koy jox usine yi nga xam ne dañuy recycler plastique beneen bi ñu ne nañ ko lakk pour éliminer ko définitivement de la du circuit waaye li ñu xamal mooy c'est plus de 70 tonnes tey dañuy def li waaye ëllëg dinañ ñëw xool yi nekk ci région yi ndax foofu amuñu jumtukaay yu mel nii nan la ñuy jëlee une logistique yi nekk Kédougou yi nekk Tamba yi nekk Matam yi nekk fépp Sénégal ñu dajale leen indi leen fii ci Sococim pour ñu lakk ko waaye dañuy profité ci occasion bi pour xamal nit ñi ne yoon dafa tere yenn xeetu mbuus yi. profité ci occasion bi lancer un appel muy ki nga xam ni day daan jëli mbuus yi bitim réew muy kii liggéey mbuus yi fii ci réew mi mooy ki koy jëlee ci usine bi di ko dellu ci boutique yi. ki koy jëlee ci boutique bi di ko yóbbu këram ñoo ñëpp ñu leen di lancer appel ne am na loo xam ni tey mën nañ koo wuutaloo mën nañ koo remplacer plastique bi gis nañ ay xeetu mbuus yoo xam ni. këyit lañ ko defaree gis nañ mbuus yoo xam ni tissu lañ ko defaree loolu mën nañ ko jëfandikoo pour remplacer mbuus yi nga xam ne tey heure bu ñu ko utiliser sànni ko.